الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم sëñ Alaaji jërëjëf yaa na sunu borom yokk fan yi bu baax a baax barke borom Tuubaa eh, sama jaww ji sax ñëw na Alaaji Ablaye Mbaye ma ni ko eh, jógal nga jël sa yëf mu ni ma mu ni ma nàkk téyal ba ca kanam <laughs> jërëjëf Mbaye kon ñi ngi nuyuwaat ñi fi teew ñëpp di leen xamal nii jataay bii commission culturelle daayira sëtu sëñ Abdul Xaadir yi dañoo tànnaat sëñ Mamor Mbàkke mu sëñ Jiili Gànnaar xam ngeen ni moom kenn la ci kër gi ndax deesul tudd sëñ Abdul Xaadir ak ñu àndoon ak moom te tuddoo sëñ Jiili Gànnaar di boroom xam-xam ba ñu koy dippee xam sa diine wala xamle diine waaye sëñ Mamour Amdi mi feggoog moom moom it di borom xam-xam bu mag di gëstukat bu mag ñëpp di ko déggee moom it mu am taxawaay bu ràññeeku ci liggéey bi rawaate na liggéey bi nga xam ni moom la sëriñ bi dénk Cheikh Mohamed Bachir ibnu Cheikh Abdou Khadre ak liggéey bi nga xam ni mook ñoom sëñ Mbàkke Abdourahmane ñii toog ñu ko set te sëñ Ahmadou Badawi nekk ca bopp ba muy di muy rawdu rayaaxiin waaye ñi ngi feggoog itam beneen sëtu sëñ Abdou Khadir boo xam ne allah moo ñuy jàngatal waxtaan wi muy sëñ Cheikh moom itam di kenn ci njabootu Cheikh Abdou Khadir soxna maam Awa ñu ngi leen di ziare ñoom ñëpp di jébbal kàddu gi nag sama sëriñ di sama xarit waaye sëñ maam moo sëñ am di di rafetlu jataay bu baax a baax di ñaan ñëpp nag ñu teew bu baax ñu nekk ci kër yi itam te di ñu topp ci réseaux sociaux yi nañu ñëw nañu fekk si sëñ Sidi ci jataay bi ñoom ñëpp nañu génn sëñ Ablaye nee na itam ñu jege fii itam ñoom ñëpp nañu génn ñi ci biir kër yi nañu ñëw ci bâche bi jërë ngeen jëf الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo نيو مبوك mbokki jullit مبوك ak mbokki taalibe دي am mbégte ci yëkkati fii kàddu ci jotaay bu màgg bu tedd bi nga xam ne lépp xéewal la lépp tawféex la kàddu yooyu nag ñu koy tàmbale rek ci ziyaare Mawlana Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi wér di ziyaare it njabootuk Cheikh Abdoul Khadir radiyallahu anhu gi nga xam ne day ci abatam la ñu nekk ziyaare boobu bu ñu ko tegee ci loxo suñu wajur Serigne Sidi bi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi mu jottali ko suñu waajur Serigne Cheikh ak njaboot gépp di ñëw rek ci jotaay bi nga xam ne ni ko Serigne Jili waxee jotaay boo xam ne dafa bokk ci ñi waajale bisub Cheikh Abdoul Khadir radiallahu anhu muy bisub lislaam di bisub jullit ñëpp di bisub xeewal di bisub yërmande suñu mu bokk ci jotaay yi nga xam ne dañu koy waajale bis boobu kon bii nag ñi koy taxaw ci bi nga xam ne moo lëkkale sëti Cheikh Abdoul Khadir radiallahu anhu bi muy kon jëf ju am solo joo xam ne ay ngëneel la yu dolliku ci ngëneelu Cheikh Abdou Khadir radiyallahu anhu na xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne nit bu fi jógee léppam dina dog ba mu des ci ñett ñett yooyu boole na ci mu ba fi njaboot koo xam ne dañu koy ñaanal ak di di jëf lu baax di ko ko kon ñi ngi leen di ndokkeel bu baax ci jëf ju am solo ji ni ko si waxee it waxtaan wi bi ñu ko jàppee it wut nañ ab tomb bu am solo boo xam ne moom lañu waxtaane muy manzilatu nafil xalqi fil islaam a Cheikh Abdoul Khadir Mbacké na mu tëjee maanaam njëriñ wàccuwaay bi nga xam ne jëriñ mbindeef yi am na ko ci lislaam jëriñ mbindeef yi wàccuwaay bi mu am ci lislaam moom la ñuy waxtaanee waaye nag dañ ciy jël ay misaal lu ñu ci wax rek ñu jël misaal ci Cheikh Abdoul Khadir nan la ko jëmmalee nan la ko dundee loolu kon tomb bu am solo la boo xam ne jamono ju ne soxla nañ ko waaye jamono ju nekk moo ci raw muy jamono joo xam ne njaboot gi yittewoo nañ ko leen taxawu yittewoo nañ ko leen jàppale te it lislaam fu mas a àgg rek ci dimbalante moo tax mu àgg fa kon tomb bu am solo boo xam ne dañ ci ndokkeel ñi nga xam ne ñoo ko tànn euh, ni ko sëñ ji la ñu tànn ñaar xam ne ñoo war a seq waxtaan wi muy sëriñ Mamoor Mbàkke xam sa diine nga xam ne moo féete nii ci sama ndeyjoor moom moo war a def waxtaan wi incha allahu taala bu noppee it ñu jox sëriñ Abdou Lahat mi nga xamne seut la ci Abdul Xaadir moom maa ko firi ci ndeyjooram mom buñ noppee waxtani mo ci def ay jangat kon euh nonu rek lañ ko fassiyene tambalé duma dugg ci tém bi wala dara dama jox seigne mam rek ñu diko ñaanal suñu borom defal ko ci tawfiq ba yaakar ji nga xamne mom lañ ci am ba jox ko suñu borom defal ko tawfiq ba mu def ci lu kawe jot su noppee ñu jox Cheikh Abdoul Ahad mu dolli ci lim ci dolli ci ay jangat njàngat sëñ maam bismillah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 وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين bokk julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu gannaaw bi nu santee sun boroom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di len ziyara di ndokkeel ñepp ci at mu yes mi nga xamne ci lañu tabbi di atum ak ñent témèr ak ñent fuko juroom ñam sun bo mu def ko atum natangé atum xéewal atum barke atum yok ci lepp lu baax at mu wees lepp lu ci def ci ay rëcc ci bo jéggal nduko te ful da lañ ci def ci lu baax mu nangul lu ko te fulal lu ko mbak seel xat ñuy fekkoo at yu bari bari bari yu ak jàmm ak mucc ñiital nag jiital ci nuyoo beeg siar beeg ndokkal yëpp Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi fi nekk Sëriñ Tuubaa ñaan su ba mu bàyyil ko fi defal nu kii naam kii maan ci aw fanam ak ak serigne cheikh cheikh ahmed mbacke mi nga xamne mo ne ci bop ñew serigne abdul khadir suma deggal katal ko agali yeen yep ya am nu gudd ak wër noy yépp ñu tek ko jël cheikh sidi al mi nga xamne moy seen jëwriñ jital ko ci bu mu tax taxay taxay lu rafet yalla nako yalla deugural katnal ko agal yeenam yep def ko fan gudd ak wër barka sel khadim kon ko junjé légui tomb bi bokk yi tànn ngir ñu waxtaani ko tey mooy manzilatu nafxil xalqi fil islaam al sheikh abdul xaadir mbakke nem wu jàpp wàccuwaay bi nga xam ne jariñ bindeef yi am na ko ci lislaam ak nan la ko sheikh abdul xaadir mbakke jëmmale ni ko sëñ Maamoor waxee tomb lu ba am solo lool bu ñëw ci jamonoom ndax fi jamono toll ci ay jafe-jafe ci ay ni dëkk bi dëgëre ak gàllankoor yu bari yépp kon dana aaji kon ñu jàngat tomb boobu yi mën naa bañ a gudd dañ koy tënkëri ci ñeenti tomb bu jëkk dañ ci xamle anam yi nga xam ne ci lañ mën a jariñe bind fi ci yan suwar yan anam lañ mën a jariñe bindeef ci lislaam ba ko ñaareel mooy yan sart mooy tax suñ ko jëfee suñ borom nangul nu ko yan sart la ko yàlla nangoo bi ko ñeenteel mooy lan mooy ay ngëneelam lan mooy yiw wu màgg yi nga xam ne moo lañ taxañ ci jari jari yàlla bi defi seen bopp subhanahu wa ta'ala bi ko juróom-yàlla de mooy bu ñu naan gannaaw bu ñu xamee loolu lépp rek sëñ Abdul Xaadir Mbàkke mi borom bis bi nag nan la ko jëmale moom kon ci ñoom taw bi lañ bëgg a tënk waxtaan bi xam nañ ne tomb la bu am solo lool ndax jariñ bindeef yi ca anam yu baree bari la ñu mën ci kemtal kat nit nit ki man nga ko jëriñ ci sa xam-xam ci jangal ko wala ye ko wala won ko ak yoon man nga ko jëriñ ci sa alal ci di dimbalé dimbale ak diko ko taxawu ci lim munta ñak ci loxna xam ko yëwénal mas na koo jariñ ci dimbale ko ci lam aaju ko ko ci dimbal ta fek yo nga am ci lo ci lo ko mën dimbalé waye ndiki mayees na ko jariñ itam ci ñaanal ko mayees na ko jariñ itam ci won ko aw yoon won ko njariñ yoon won fo jaare jari ñu won ko ko tektal ko ko mayees na ko jariñ itam ci lay biire ko mayees na nit ci sam xel ci diko ko yee waaye mayees na ko jariñ itam ci diko ko digal lu baax mbaa di ko mays na ko jëriñ itam ci xamal ko sikk suturaal ko ca kon day mel ni kon anam yi mën a jariñe bindeef anam yu bare bare bare la yoo xam ne mooy su toog fii di ko lim kon bu ne jariñ bindeef kon jariñ mën na nekk ci anam yu bare bare bare yu limu yi ma tudd ak yi ma tuddul am na wàccuwaay màgg màgg màgg ci biir lislaam ndax dafay tabbi ci biir li ñuy tudd xidma xidma nag mooy jëf joo xam ne jëfoo ko ngir sa bopp maanaam yow mi ko jëfal yow mi ko jëf keneen nga koy jëfal maanaam la ca bàyyi ko keneen a koy jariñoo te yow mi ko jëf doo ci sàkk payu gu teew yàlla kese ma di ko def doo ci soxla ku la ca tagg mbaa ko la ca sant mbaa ko koy nettali yàlla rek ay tax lool moy xidma xidma nak dafa bari ay anam bari ay bunt waye buntu bi ci depp ak li waxtan tay nak bu nekk ci ak sunu mom la ñu tuddee al ihsan al ihsan moy jëfal yalla ci ay jaamam jëfal yalla ci ay jaamam ndax jariñ gogu ñu doon wax léegi man na nek man na nek man a rek maslaha amma njariñ lo xam ñepp ko jarñu ci misal da nga bënn xoras ngir ñepp di ci na wala da nga tabax hôpital ngir ñepp di ci faju wala da nga ubbi dal ngir ñëpp di ca jàng wala da nga defal ak yoon ngir ñepp di ci jaar kan day nekk maslaha amma kan yoo ñepp ko bokk jarño ni nga ma nek jarign kenn nit non nga mëna jarño jariñoo lo loo xam ne ko bokk jarño waaye it mu nek lu am solo xam sun doon ci bopum da ko tuddu ci alquran digle ko wane it wàccuwaay bi mu am inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani wa itaai dil qurba yàlla dafay digle maandu te maandu mooy képp koo jëflanteel nga jox ko xaqam ba sëkk sëkk boo doo ko deseel dara su àqam matee nag ba nga tegal ko ca leneen loo xam ne doo àqam waru la waaye yaa ko baaxate yàlla tax lam ko baaxate wala loolu la tuddee ihsaan mooy def lu baax lu rafet lu la wër waaye yooyu nag ci biir aay bi mu junju ca lenn ci ay détail mooy wa itaa idil qurba taxaw say jege ñaale ci jokk leen ci jàngal féeti ku nekk fa ko war a féeti nga xam waxtu ne da jàpp na yaa war a jariñ say bokk doo si jël kenn waaye da nga jàpp ne yaa war a jariñ ñëpp وايتم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي نولا تريتم دل تريتم حرام فحشاء مويلو حرام اك لب لجسيب وايتم اك مبوته نسمنا دلين دوار تيو يي غير نيان نت نك يفاتلكو اك ديشوارو يعيذكم لعلكم تذكرون دل وخار فنن jar jëfal yàlla ci jàmm ñi dana waral cofeelu suñu borom wa ahsinu inna allah yuhibbul muhsinin de leen jëfal yàlla ci ay jaam ndax yàlla na lu ku koy jëfal ci ay jaam dana jur itam yërmande di borom inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin yërmande yàlla de lu jage la lool ñii jëfal yàlla ci ay jaamam ñi rafetal tey da tax sun boom sambal la sepp cër sab yol ba do ko jàkk no bi rahmatay man bi rahmatay man nasha wala no di ajral muhsinin mu bok nak ci yi yalla ci xeeti jëf yépp ki koy jëfit bok ci ñi yalla ci mbolim bindeef fi ci hadith bu gudd bo xam abdullah ibn omar moko netti radhiyallahu anhu أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم aw takshifa anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrud anhu juu'an dafa am ku ñëw ci yoon saa sam laaj ko ne ko ana jën jëf ana kan ci nit ñi moo gënal yàlla ak jan jëf ci jëf yi mooy ji gënal yàlla salaasum tontu ne ko ki gënal yàlla ci nit ñi mooy ki ci ëppal njariñ nit ñi te ëpp njariñ ci benn njariñ yi ma tuddoon mbay yi mu tudd ndax ne anam yi mën jariñ nit nit waaye ka ca ëpp njariñ kon foofu la ronte bi nekk bu ne jariñ nit ki ke ëpp lum jariñ nit ñi moo la fa yàlla subhanahu wa taala te alxalqu iyaalullah wa ahbuhum illa anfaahum li iyaali bindeef borom lañ te ci gën li njariñ jëf gën ci jëf yi mooy mbégte moo tabal ci ab jullit jullit nga fexe ba mu bég ak ci noo ko mën a bégale ci anam yi dagan yëpp nga fexe ba mu bég bokk ci jëf yi gënal yàlla waaye itam wuññil ko njàqare wuññil ko njàqare mu ne ci ay yi nga fexe ba dalal am xelam ma njàqale yu ci xolam bokk na ca waaye fayal ko ab bor ma am bor nga demali ko ci fexe ba mu fay bor ba ak itam fegal ko ab xiif mu teg ca ne wala an amshiya ma axin fi xaajatin ahabu ilayya min an atakifa fi hada al masjid yaani masjid al madina shahran giñ naa ci yàlla ne ma ànd ak sama mbokk dox la ko ci aajoom ngir aajo jafaju moo ma gënal def li ci sama jàkk ji weeru lëm mu jàkk madina xam nga jàkkee Madina am am am na jagleeg boppam ndax benn rakka boo fi julli wut na junni rakka yooyu julli feneen te neen def li atikaaf ci jàkkaam jooju weeru lëm man a ànd ak mbokkam doxle ko ci aajo ngir mu fajoo moo moo ko gënal kon demee kon moo ko ëpp ngëneel teg ca ne waman kat fa xadabahu satarallahu awratah waman kadama gaydahu walaw shaa an yumdiyahu amdahu mala allahu xalbahu nuuram rajaan yawmal qiyaama wa man masha ma axi fi xaajati xatta sabitaha asbat la qadami yawma tasul aqdam dafa wax ne képp ko fegal sama mbokk ju mer maanaam fegal ko sa mer dalaa merloo waaye nga fexe ba nëbb fexe ba fay yoon ci moom boo leen mën koo feeñal waaye nga wan ne mer ma te yàlla tax yàlla feesal ra yaakaar ci xoolam ëllëg bis képp ku dox itam ànd ak mbokkam ci aajoom ba mu faju yàlla dina dëgëral ndëggoom ci siraat keroog ba ndëggoo ya tarxis di tabi sawar kon nga gis kon kon moo nekk ci doxle sa aaju ci mbokkam mooy fexe ba jariñ ko xadis bu tedd boobu nag ak li lambo ci ngëneel moom la shaayir ba doon junj di wax ne wa afdalu naasi ma baynal wara rajulun tuqda ala yadihi lin nasi hajatu na ki gën ci nit ñi moy waaji nga xamne aajo nit ñi dañuy fajo ci loxom aajo nit ñi dañuy fajo ci loxom koku moy ki gën ci nit ñi laaj na ñun yun sas ci tam ne ko ayul amali afdal ana jën jëf bu ko ci jëf yi mu ne an tudxila ala axika almumini sururan aw taqdi lahu daynan aw to khubsan khubzan nana jëf ji gën ci jëf yi moy nga tabal mbekté ci sa mbokum julit wala nga fayal ko bor wala nga lehal ko mburu la tuddu waye loko ko mën la ci lu mën a ñom ba fegal ko xif lol bokk li gën yalla ci mo jëf ci ay ahadis yu tekkale wàccuwaayu jariñ mbindéef yi yu bare bare bare bari la dañ ciy tudd yenn rek bokk na ci yu mu wax ne man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmal xiyaamati waman satara musliman satara allah fi dunya wal akhirah wallahu fi auni al abdi ma damu al abdi fi auni akhi kep ku wunjil ab julit njaqare ci njaqare aduna yi su mbaam ko ab njaqare ci njàqare alaxire te foofu lañ ko gëna soxla soxlaa ku jàpp ndalal ku ne ci jafe-jafe fi ci àdduna su mbaam def ko ak japp na ak sutal ab xamal ko sutural ko yalla sutural àdduna ak akhirah mu ne yàlla daal mi ngi sax di nekk ci ndimbalal jàmm bi mi ngi sax di ko dimbale li fekk jàmm baa ngi dimbale bokkam wala fi yaa ngi dimbale sa bokk jullit rek sunu borom mooy dem sa wàll di la dimbale te ndimbale yàlla gën nag muslim moo solo boobu mu def wax ci benn ne sanaa'iul ma'ruufi taqi masaari'a suu wa sadaqatu sirri tutfi'u xadaba rab wa silatu rahimi tasiidu min al umr rawahu tabrani neena jeffi jëfi jeffi yi dañuy fek day ñu ñaaw yi jeffi njëkk dañuy fek day ñu ñaaw ta te sek ra sarax boo xam da nga ko sarxe se nëbb ko kene bu ko nda fay fay merum borom bi subhanahu wa taala way jokk bok jokk nda fay doli aw fan jokk da fay doli aw fan kon dimbale sa mbokkum jullit kon dafa bokk ci bunt yi gë yi gën a ëpp aw yiw ci jëf yu baax yi wàcc mu nekk wàccuwaay bu kawe lool ci lislaam lislaam yi nga xam ne ay pas-pasam ak sharaayam lépp dafa ñëw ngir yéwénal àllaaqa diggante jaam bi ak boromam bi relation bi dox diggante jaam bi waaye ngir yeewee ne itam àllaax bi dox diggante jullit ak mbokkum jullitam maa ngi ci seen bi seen bopp. moo tax lislaam soñe ci bu njariñ nga bañ koo aakimoo yem si waaye nga ja nga fexe ba mu jàll ci ñeneen la nga bu ko aakimoo waaye na jàll ci ñeneen nga jariñ ñeneen sa kemtulaay kattan donte ndimbalool dafa jëm ci xaywaan sax am na yol bu mag mag bu ci nekk naan na xal xel lañ wax kon yebul ci nit rek. waye jariñ bayi ma sax mbokk li nga xamne ne bu mag mag mag mo ci nak dañ ci kanam inshallah allah ngi dimbal nak muy façon dimbal bi muy fexe ba jariñ nit am xeet la ci xeeti jaamu yalla ana jam jaam bi sañ na ci yaakaare ak yalla bàyyi subhanahu wa taala bok ci sat yi tax nak ñu nangu ko tax nga am ci ab yol ndax jëf ju yalla nangu ci nga am ab yol mooy mu nekk xaalisatan li wacci lay taala mooy li ngay jëf na yàlla dong tax jëf ji nga jëf nag si nga ca yéene ay yéen yu bokkut ndax yéen ci yéen yu bokkut maa dàqonte wut ak sellal ko ngir jëmale su taala ci misaal man nga caa yéene sant yàlla subhanahu wa taala ci xéewal gi mu la xéewalal na ma na laa boole ca ñay laaj te nga lakk ñàkk aaju woon ndimbal kon bu la dimbalee ba yow nga mën a dimbalee kon nga jékkati joxe nga jublu sant yàlla nga xam ne joxe gi nga joxe da nga jublu sant yàlla yéene ko ca du tee nga am ca yool ba nga ca am wala boog nga yéene ca bégal bégal ki nga ci mën a ma tàbbal mbégte ci xolum julli bi nga bégal ak yeneen yéene sax kon yéene yu bare bari mën naa daj ci jënn jëf te du dàqonteeg nag sellal ga ngir jëm yàlla du dàqonteeg tiyaaba nga jàng ne moom ko ci war war war am ci ci kaw sell ga ko sellal ngir jëm borom subhanahu wa taala nag joxe gi ngay joxe nag danga caa yéene sa njariñal bopp rek yéene sa njariñal bopp na ci ñaari anam sa njariñal bopp mooy danga caa lañ ci jublu mooy ko tagg di wa diwa di wa tabe di wa mën nga kon day melni ni nak selal gën ci tam gën ci kon kon su boobaa nag suñ la xasse tag na ya bax ya tabe ya melni lola mo ci sab yol bis ci jëli dara ndax sun borom jëf ju yalla tax lay nang waye jëf ju sel sun borom du ko nang inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba jëf bu yalla taxu rek sun borom du ko nang te jëf yàlla nangu na doo ci jële dara ko demee alax day mel kon la la taxon nga di ko jëf mooy jotoon nga ca mooy tàggoon nañ la santoon nañ la ca eh, bàkk nañ la ca mu jaax waaye su fekkee ne njariñ yéen maanaam njariñal boppam ji na dafay dafay lu ajuwaat ci charia ci misaal nit ki ànd gi muy ànd ak soxnaam da cee yenn fegal ko ak fegal boppam tabbi ci lu haram soo day mel kon loolu ci boppam lay ànd ak lam ci am ci bànneex kon dafa yem ci boppam waaye teew na sumbam bi da ko ci ndax dàqonte sellal gañu waxoon muy fii ne la la yéen waxoon ku ci jaxasoo ak soxnaam suñu bon ko ci bindal tiyaaba ñu ne ah ya rasulallah ay yati ahaduna shahwatuhu wa yakun lahu fiha ajr قال أراك لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر yow yàlla yónni nan la nit di amee bànneex dex sonn am bànneex ba noppi ñu di ko ci bindal tiyaaba mu ne waaye su fekkoon doo ko def xaaraam nag ndax du ci am bàkkaar ñu ne ko ah mu ne moo bu ko defee fële sum doon ko ci bindal tiyaaba kon ñaari ñaari yooyu kon jee day njariñ lu yam ci sa bopp waaye doo ci jëlee dara ndax lañ ca bëgg dafa dàqoon teeg sellal ngir jëm yàlla bii dafa yem ci sa bopp waaye dafa lëkkaloo sharia moo tax dañ ci am tiyaaba te daqo ci suñu boom gañ gañ gañ ci tàmboon digal la ko ci muslim moo solo xadis boobu koo gisee kon mansila bi mu am mooy moom njariñ bindeef yi tax na mu gënee ko lu baree baree baree bari ci xeeti jëf yu baax yi timi ko ay ahadis yu baree bari dikk yu koy feddali di ko firndeel ci ne liggéeyal nit ñi bokk na ci yi gën ci yu baree bari bari ci xeet jàmm yi nga dana ca taxaw di ca mën a jële ab yool wala bu di ci am ngërëmal yàlla bokk na xadis bi nga xam ne alimaamu Saadix moo ko moo ko indi ne xadaa u xaajatil mumini xayru min ximlaani alfi farashin fi sabilillah faj aajoy doomu aadama bu doon ab julit moo gën nga goreel junniy jaam goreel benn jaam rek bokk li ci ne ci aw yu kenn na toll waaye moo gën itam junniy fas yoo sëf ba fees nga def lépp ci yoonu yàlla te benn dërëm boo def ci yoon yàlla rek kenn xam na da ab yow nam toll kon dafa tegtal kon màggaayug faj aajo nit ak taxaw ko beneen xadis itam buy wax ne وحمنا الإمام صادق ما كنا تري من والذي بعث بالحق محمدا بشيرا ونذيرا لخضاء حاجة امرئ مسلم وتنفيس كربته أفضل من حجة وطواف وحجة وطواف حتى عد عشرة ثم خلى يده فقال اتقوا الله ولا تملوا من الخير ولا تكسلوا جناتي ki nga xam ne moo moo yónni Muhammad ci dëgg mu nekk kuy béglee ko xuppee taxaw ci aajoy ab jullit mu faju wala wuññil ko njàqareem moo gën xaj gu ànd ak tawaaf xajaat gu ànd ak tawaaf ba muy fukki xaj ndax wàcc ay loxo loxo le waay waaye dikk nag ragal leen yàlla te bañ a yokkat ci lu baax lu baax kenn du ci yokkat aw kenn ci yokkat bu leen ca tàyyal itam ba tey beneen del waxaat ne mashul muslimi fii xaajatil muslimi xayru min min sabina tawaafan bi xaram dox ci aajoy mbokkum jullit moo gën juróom ci baytulaay xaram kon lu màgg la jëli ca may moonu maharaan mu ne kuntu jaalisan inda alxasan ibni aliyin radiallahu anhu fa ataahu rajulun fa qaala lahu yabna rasulillahi inna fulanan lahu alayya maal wa yuridu an yaxbisani fa qaala radiallahu anhu wallahi ma indi maalun fa aqdi anka qaal fa kallamahu qaal fa labisa alayhi salaam na alahu fa qultu lahu ya ya nabi yabna rasulillahi ana si ana si dafa wax ne damaa ñëw ci imam Hasan nekk ak moom am ku fa ñëw ne ko yow sa sëtu bi ma ne dama am ku ma ameel bor te daf maa nar tëj mu ne ko wallaahi war nga maa fekk boo ma fekkoon nag ma ma ma yor lu ma ko ma fay dinaa la fayal bor ba waaye daal sol ay daal fas yéene ànd ak moom ngir dox ci lu koy faj nen ma ne ko yow sëtu Rasulaay ndax dangaa fàtt na ci ci li itikaaf nga nekkoon ndax boo dafa ne ko ci li itikaaf jàkk dangaa fàtt ci li nga nekk mu ne ko lam ansa walakinni sami'tu abi alayhi salaam yuhaddisu an jaddi rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qaal man saa fi hajati axi muslim fa kana ma abdallah azza wa jalla tisata alafi sana saiman nahaarahu qaiman layla ne fàttiwu mu ko de waaye damaa di sama bàyyi àlli yu muy nett li ci sama rasulillah wax ne rasulillah sallallahu alayhi wasallam nee na nga dox ci aajoy sa mbokkum jullit moo gën jaamu yàlla ak juróom-ñeenti junni at yoo xam ne danga war bëccëg ya taxaw guddi ya xam nga lool lu màgg màgg la waaye li muy rëy rëy rëy rëy ak la muy màgg màgg màgg ndox ci aajoy mbokkum jullit a ko gën li lépp kon day wane rek wàccuwaayu bu kawe bi nga xam ne jariñ bindeef yi am na ko tiimi ko jëf yu baax yu bare bare bare bare waaye ma am nag leneen njariñ loolu zaahir mooy saa booy dimbale sa mbokk doomu aadama ci di faj ay ajom faaw ak bokkoo day jur ci seen biir day feeñ ci seen biir ak mbokk day feeñ ak cofeel day daal di feeñ ak ëmbalante ñax day daal di feeñ ci seen biir salaal sa waxoon na ne wallati nafsi bi yadihi ginnaaw ci gan sa bakkan yoo amul kenn ceen gëmum du mat lu may dafa bëggal mbokk la bëggal boppam ko waaye di co di dox na ci lu ko yëwénal boole ci ku ma nekk texee goo xam ne genn texe melu ni moom mooy saa boo nekkee sababus réussite keneen nga fexe ba nekk sababus réussite nga xam ne keneen day réussite ci sa sabab yow day mel ni ximatu sangada muy muy mu njabaxtanu texe dëgg-dëgg wala njabaxtanu réussite dëgg-dëgg tey njabaxtanu mbégte dëgg-dëgg mooy nga doon koo xam ne mbégte nit day bég te mbégte mu bàyyi ko ci maa ngay sabab si tax mu bég te xam ne ab yool yoolu ëllëg ci yàlla lay bàyyi ko waaye tawféexi àdduna ci yàlla lay bàyyi ko sallallahu alayhi wa sallam newoon na inna ahabal amali ilallaahi idxaalu sururi ala xalbi mumini wa an yufarrija aw yaqdi anhu daynan aw yut'imuhu jëf ji yàlla gën gën a bëgg ci jëf yi mooy tàbbal mbégte ci xolub aji gëm ak wuññal ko njaqare ak fayal ko bor ak fajal ko ab xiif nga gis ko noonu la ca rocc ay ribaayaat yu mel noonu ci li wax ci loolu xadis yi kenn mënu ko yu bari bari waaye jëpp jëf ju mën a doon lum baax baax balaa am njariñ danga koy jëf ngir jëm yàlla lépp yalla taxu dëgg amul njariñ kon mënta ñàkk ñuy jëf lu baax ndax dañ roy lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu ñuy jëf ñu di ca xaar yool alaxe bay ko ci subhanahu wa taala mujahid neena dama rek Abdullah ibn Omar ci ab tukki ngir di ko liggéeyal waye dam ji mom moo faat di ma liggéeyal sax lu ëpp si li ma ko li ëpp li ma ko liggéeyal moom lépp nag mi dimbali nit ñi defa seni aajo lepp nga sakku ci yalla yalla subhanahu wa taala kon bul jëf ngir jëf ju bayiko ci nit bu sekk benn jëf ngir jëf ju la nit wax jërëjëf jëf ni ju antok jëf yalla da nga fexé ba yalla rek kon da ngay dox ci la la lepp woo waxone ifal Khairan warmihi war fil bahar jëfal lu baax ba noppi nga sànni ko ca géej ge mooy jëfal lu baax waaye bu ci amati soxla nag bu ko gestu bu ca bàyyi xel loo jëf bu ci lu baax ba noppi fàtte ko kon amul morom ki nga xam dafay tàbbal mbégte ci xol bu aji gëm moo xam day xale bopp jirim moo xam day góor gu màggat moo xam day jigéen joo xam ne amul wéeruwaay wéeruwul ci kenn ak jëf ju ma doon nga jëfal ko jëf jëf jiw wala jàppandal seen jàpp fexe bay jàppandal mbir nit ñi ko de woyefal seeni métit di ñàkk a mana maanaam bañ bañu ñàkk a faale seeni mbir maa de woyefal seeni mbir salaas ne man sarra muminan faxat sarrani wa man sarrani faxat sarrallah kep ku bégal ab julit bégal na ma te ku ma bégal kon ki am xel day dox doxin mu ma sëkk ci faj aajoy boppam waaye nan la koy faje nan faj faje boppam mooy ci di dox ci aajo nit ñi dox ci aajo nit ñi mooy tax sa aajo faju ndax su boobaa ci la société bi di mën a ràbboo ci la ñuy mën a jàppalante ci la ñuy nekk mën a nekk benn tax kamaata di nutu daan ci nga yegi itam ci ci ci ci ci kaw daraje wi kaw yi boobaa nag mirante day la di juddu yërëmante day la di juddu ëmalante ñaw nit day dal di juddu na sama mag day taxaw tem ci waro garam ci digge mak xale ki am katan taxaw tem ci dimbale ki neew doole ki am alal taxaw tem ci dimbale ki ñak lañ ca sàkkoon lépp di ca daal am ci bennoo gi ci rafetoo gi ci miinante gi ci soppante gi ci mbokkoo gi kon soo bëggee yàlla jàpp na sa mbir fajal la say aajo yooyu dangay dimbali nit ñi ci seeni aajo ndax fal jazaa'u min jinsil amal kenn ko la nga jëf rek pay gu pay gu xeetoo la nga jëf moom lañ lay fay te leer naññ ci ne képp ko tàllal loxoom jëmee ko ci mbokkam jullitam ngir dimbale ko sàkk ko ci ab yool ci yàlla subhanahu wa taala yàlla da keneen koo xam ne moo day ne ci wetam di ko dimbale saabu bu dimbale sa mbokk rek sunu banaat di ko ku la féete fa di jàppale ca la nga mënta jàkk yooyu itam waa ju baax wax ne da wax ne man de jeexiiti dimbali ni ci sama bopp laa ko xamee ni nga xam mooy saa bu ma lu ma judd rek na ko su ma di jàppandee sama mbir yëpp ni muy jàppandee ca la xamee ne kon xëy na jeex lii mooy jeexital di dimbal nit ñi ndax ci sabab daal ko gis nag dafa bokk ci buntub njëkkante jëm ci jëfu yiw te fexe di ci njëkk fastabiqul xayraati saarixu ila rabbikum saarixu ilal xayraat saa ila maxfiratin rabbikum yu yu bare bare bare bare nga day wane day wane nit ñi dañu war a njëkkante ci lu baax te fexe ba kenn du la ca njëkk kenn du la ca ëppale it kon an amulu gën a màgg kon diine ji nga xam ne dafa def dimbali nit gi mu am man bu kawee bii mu am ba ci dimbala xayawaanaat yi sax njariñ lu mel noonu am ca soxna si mi ngi natt benn xadis boo xam ne da ne ñew na ci sahihul bukhari ak sahih muslim yep ñew na ci mune innam raatan bagian raat kalban fi yawmin har ya tayfu bi biirin xada at la min al atash fa nasaat lahu bi mawqia fa xufira laha ndaw so xamne ko da jaay bopam la jigen ju da jaay bopam waye mo dox ba yem ci benten bo xamne gis na ab kel bu buy wër ten bi bu ci laañoo bay mar def sax ngir aw mar mu dal di summi aw dalam wut lum ko takke ba tànq ca ndox ma diko jox xaj ba xaj bu ba demal boppam su da ko jéggal ko tabu ca dem te ne ju da jaay bopam la wa ci dimbalé ab kël bu ci la ko yàlla al janna wa gannaaw nit ku boné ni la yalla jéggal ci topoto bayima kon naka kon waa ju baax ji nga xam ne ma ngi topp mbokk yu jullitam yu góor yu jigéen kon xam naa yool ba kon ci la gane ci la gën a bari ci la gën a màgge ci ñëw na kon ci lu gàtt ci njariñ yi nga xam ne nag moo am ci njariñ nit ñi ay ahadis yu baree bari rod na di wane di fedd li yool bu mag bi nga xam ne mi ngi ci sun sun doon da ko teg mu jàkkaarloog jëfal nit ñi liggéeyal leen taxawu leen faj seeni aajo la ci ma juddoo ba ci njëkk mooy jariñ bi da nga ci mën a jële ràmmuk yonent bi sallallahu alayhi am ràmmam jële yonent saa sam wax ne man xada xaajatan li axiihi kuntu waaqian inda miisaanihi fa in rajaxa wa illa shafaatu lah képp kuy faj aajo yi nit ñi bis penc suñuy pesse jëfan dama ñëw taxaw dama ñew taxaw su fekke jëf ju bax leung na baxna su jëf su fekke jëf ju bax leungul maram ko kon taxaw nit ñi kon dag ci man am ram ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muy ben baxu ñaari mooy dañ ci jëlé sécurité ak wolu inna lillahi ibadan min yafsa'u al ibadu ilayhim fi hawaijim ulaika humul aminuna yawmal qiyamah am na yàlla am na ay jaam ci ay bindeef yoo xam ne saa bu nit ñi jàqee ci ñam lañuy daw wuti ngir faj bu ñu faj seen aajo mu ne ñooñee mooy ñooy ñi am ak wóolu bis penc ñooy am sécurité ëllëg bis penc nga xam ne da mbugal suñu boon duñ daj duñ daj yàlla duñ daj benn fitna ba ko ji ñet ba ca topp mu ñetteel mooy dana tax a dëgër ci kaw siraat soo ko jéggi doo tar la koy dëggal mooy xadis bi wax ne man macha في حاجة لأخي المسلم حتى يتمها أثبت الله أدق قدمي يوم تزل الأقدام nee na képp kuy dox ci aajooy mbokkum jullitam ngir bëgg mu faju ba aajo ja faju ëllëg su mën a tax dana saxal ndëggoom ci siraat kero ba ndëggee tarxiis ci tàbbi sawara boo ko ñettee mooy al istislaal bis penc buñ demee bay tàngoor wi tar lool metti lool ker jafe lool kii taxawu mbokkum njilitam ci di ko jariñ su ma dana ko keral moom man amila fi xaajata axil muslim adallahu llahu yawma la dhilla illa dhillu ba ko juróomeel ma mujj ko ca mooy dana taxa sori sawara xadis ba koy saxal mooy li mu wax ne man saa li axihi almumini fi xaajata min xawaaji dunya xadallahu asa wa jalla lahu بها سبعين حاجة من حوائج الأخيرة أي سرها أن يسهزه عن النار نركب كده خشيم بكو تأجوا بكم جليتم تبين أجوا تأجوا أدنى يالله نكو فجل بسبنتي جرم نعرف كأ أجوا خنا بتشجنا يومبو ما يسوي بسوارة كون جرين أن في كون لا ما أمسل الله لكن أن تفسير عبد القادر مبكي مي بروم بسبي أن في دجاجة tax mu jëmmal ko nag jëmmal ko fis ci biir ay jëfam ak ay jëflanteem ndax sëriñ Abdul Xaadir day jëmm joo xam ne lisaan rekk la doon dund bi kulli maanal kalima nekk ab julit piir bi kulli maanal kalima julit xàqan buy dundal diine te lépp mu dëppale ko sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa ba ci jëfi aadam sax ngay fexe ba dëppale ko sunna si yonente bi sallallahu alayhi su ma ko doon wutal portrait ci Abdul Xaadir su ma ko doon wutal portrait wax ne portrait mooy aayab laysal birru antu wala jooku xibla ma sewal maxrib aaya boobu soo tàmbalee ci walakin juróom maanaam bi laaxiri ba ca ولاك هم متقون كوكو سي عبد القادر ليس البر سون بون دا فا واخ ني دا واخ ني بيغا خامي ني نوخ بو نيك جولي دا دان جولي دي جوبلو بيت المقدس ما ياك سون بون سوبي قبله بي دي جوبلو لو مكه فوالي وجهك شط المسجد الحرام انت يهود يا نيو خن لول دا فا ديسون نيوم لول yan wax ne yahud dañ da jublu penk suñu julli na jublu sawu sun bo wane ne mbir mi newul fofu mbir mi néew ci jublu panku néew ci jublu sawu néew ci jublu bayt maqdis ci jublu haram waye mbir moom moy lakolal bagala lal bari la ko lal mooy ndigal sun bon dig dal nga ndigal la lola ci am solo moy lam waxon ci lam ci tabaski ak ak hadiyu ne yàlla soxlu ndawal gi soxlu deret ji lan la ci soxla mooy ragal yàlla ga ko lal loola wax fii kon njekk ak jëf ju baax nekkul jullu penk ba jullu sow waaye la ko lal nag mooy la ci am solo la ko lal nag mooy walaakin bil aaxiri wa aqaama salaata bi wa nabiyiina nga jël nga taxaw foofu dafa njëkk imaan mooy ki ki nga xam ne njëkk mooy nit ki am gëm yàlla gëm yàlla cem nañ ko war a gëme ana melokaan ya xam la war ci moom la jomb ci moom la dagan ce moom ci xàqam lépp nga xam ko gëm ko te nañ ko war a gëme waaye gëm ya ca topp mooy nga gëm bis pénc mooy ñu tuddee al imaanu bil xay bi gëmal la mu lépp nga ne bis luy am la luy dikkale um benn si sàkka lam àndal ci ay mbégte mel ni aljanna lam àndal ci ay tiis lu mel ni sawara ca peese jëf yaag jéggi siraat ak lépp nga gëmale ko waaye itam gëm malaayka gi ay jàmm ba bind melokaan yañ ca wax ci ñu war a mel lépp nga gëmale ko gëm itam alquran waaye alkutub munazzala yëpp nga bool leen gëm gëm ne sunu bam wàcc na téeméeri téere ak ñant nga gëm yëpp waaye alquran nag la ca la nekkoon ca téeméer téere yaak ñett yëpp Modou Moussa da ko def ci alxuraan alxuraan folli téere yooyu yëpp kitaabuhu kulla kitaabin nasaxa wa innahu fi abadin lan yun saxa la Sëñ Tuubaa wax dafa folli téere yëpp te benn téere dootu ko folle gëm yonent yi sunu yónne yónne ay yonent la ka ci njëkk Seydina Adama ki ci muy Seydina Muhammad di ki ci gën it yonent yi ku ci ko ci ab gox yónni ko ci aw xeetam nga gëm ko day mel soo ca dollee gëm dogal mooy motli mooy motli juróom benn ponki liimaan yi nga xam ne ku ko matal ku ko matalul ku leen gëmu rek sa gëm yàlla Sëñ Abdou Khadre nag ngëm yàllaam fi mu àggoon ak doyloo yàllam ak bàyyee ko boppam sukkandiku ci moom dama la su ma waxoon ne oy ko allah fa huwa hasbu koy doyloo yàlla wéeru ci moom suñu mboo doy doy sëkk kaaraange moom dund na ko te gis na ko wakkilu ci yàlla moo tax daw takk gàllaaj daw naan saafara daw ko sangoo du ko du sëf du def leneen daa bàyyi boppam yàlla rek bàyyi gi bopp mooy yàlla tax na yàlla sunu itam féete ko fa war a féete ba kenn mësu ko noo noo fanaane Cheikh Abdoul Khadir dund ba ci kenn mësu ko noo fanaane kon bàyyi bàyyee yàlla boppam foofu xas bu xoo ci sunu waxoon kon mooy mooy mooy mooy su ma doy ko sëkk kaaraange mu teg ca nag wa aqaama salaata wa aata zakata bu ne asalaat moom Cheikh ñëpp dañ ko daal mën a atteel seen bopp ba mu toll ci ndaw nekk gerte di jàng sëñ Mbàkke musa sëmal ci jàkka je geestu gisu gannaaw te booba at yi néew na lool di ndaw wax na ne sëñ Mbàkke sax léeg-léeg boo bu xew yeex daana ko nekk ngir ngir ngir ngir seetlu gam seetlu loolu ci moom nga ko teel a tàmm jàkk la tey say doxat du julli génn julli gum julliwut ci jàkk ci biir këram gi moo daa jiite jàkkaam ji waxtu waxtu yépp mbax di gis nga jàkk ji nam daan de kër ga moo moo fi daa jiite waxtu yëpp musaan gis nga jàkk ji nam daan de kër ga moo ci daa jiite jiite waxtu yëpp tukki yi mu daa tukki di gàncax mi saan fu mu mën a dem waxtu ci jàkkale ko jullee di jiite jumaay Sëñ Tuubaa ji ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne mosoo ca manqué lu dul ba mu dem Màkka di di di jox faratay xajam ak ajuma ji ko mujjee fekk jamono nga xam ne ñu ngi ci waajtaay mu ne kon wax ama salaata ji kon moom dund na ko dund gu wér a wér a wér waaye asaka ke moom mosu koo génne asakay kee da bokk ci dafa bokk ci sàtti asaka nga denc nisaab lu mat at moom mos a denc lu jëm suba waxuma la lu ñëw mu jox ci yoon yàlla lu fanaan ci moom daa guddee ñëw lu yenn ci moom daa naajee ñëw kon kon kon loolu dund na ko wér wér waaye nag wala moo fon bi adima isa ado matal kóllëre matal kóllëre daa bu mu tëb wa aatal mala alaafu bi zawil xurba la da ko da ko da ko dundal bu wér a wér mooy mboolem kuy mbokk ci moom loo fegge fegge fegge fegge nga xam da ngay jàpp ne xelam da suma de un jaw ñëpp la li may dem ci ay nit kenn xam nu toll ci ay mbokk ma yor si lu ma di yónnee sa baay la ko yoon yónnee nga dee ci kon yàgg na ko yónnee kon nga du ne bañ laaj ko waaye day day lay jox bala ngaa laaj nga xam ne mbokkam fu mu a nekk rek day jekk jekki di di di yónnee ci te li ma wax ci ay nit kenn ñëpp day bok kon daan top ay bokam di nemmi ko di len dimbalé di len fété fam len wara fété wa ala hubbi hijja nak lu ci am solo la la ngay joxe day doon lu bax lo bëgg mbam mi nga sol bam rap wala mu furi nga door ko joxe amul ndari wa jasneer bu bes bi nga door xoti ñaw ko ñaw bu cher bëgg ko sa xol loolu lañ bëgg nga yëkëti ko joxe ko million bi nga dénk dénk ca banque ba nit kii ñëw amul lu mu dépassé nga dem génne ko jox ko mbaa nga jox ko ca al day sax ci xol waaye dañu bëgg nga joxe la la nga bëgg lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun foofu baatu bir la fi indiwaat du ngeen am njekk lu baax lu dul da ngeen a joxe li ngeen bëgg wal yataama ñaate jirim yoo xam ne seen waaju dafa faatu bayi len amuñ fuñ wéru mu don sen nday don sen bay taxawu len ba yegatu ñak wajur dafa don ci tuba ci la borom mom ne wal tubashir bil yatama dawaman ansihim bi abaahum kulla hin ci ma ñaan noonu ko yosu nooy maa ngi lay ñaan yàlla na nga begele jirim yi ci man yalla nga begel ci man mbekté mu sax ba faté lolen sen bay sen bay faté fàtte ne bay ngir sama jëm suñu doon nangu cheikh Abdu Xaadim daf ko don def doon suñ Tuubaa da ko caa don wal masakini min as sabil wasaa'ilin kër gi soma ma sañ ñëw day kas dal ak ñuy laaj ñi laaj ñoo fi dañ jitu ñuy joxe léeg la ñi laaj ñu ëpp ñu joxe ku ñew daanal am na ordonnance yi moo ci manoon ay ordonnance li ci daa jënd da nga ci ngeen kayit képp lay am wo ordonnance saa ba amee yitte rek indi kayit wa ma ne ñaata ko rek génn jox la soo léegi boo amaati soxla génn waat woo woo kayit ba tey nga defen du ko xam xam da koy xam ba noppi nangoo tabbi day xam xay xam ay naxam nangoo caa tabbi lu muy dëgg yi baax xam say nax ba noppi nangu caa tabbi waaye nag euh, matal kóllure kóllure tax ngan yim daa gane ji ci Saalum Kawlax Mbirkilaan naajal Poroxaan ila axiri yi wax la benn ci matal kóllure mooy bi nga xam ne doon na xalif Seexul Xadim xaw Kawlax daa dal kër Alaaji ma Yaasin Sekk ñu naa ah, gannaaw léegi xalifa kon nañu wut nañu wut barab bu gën a bakkane wut feneen foo xam daal jàpp nañ fi moom dëpp naa xalifa suñu ñu ko mu ne déedéet fa mu daa dal rek kay maa si sekk rek nga xam ne kon du du du du du fàtte kon ku ku daa dund kolde te di ko matal la nga ne ca mbaakool ak yëpp mooy mooy mooy dox kolde ak dox mbokk la la la jubloon ñaata nit la dimbali ci ak ñaanam ndax ni mu dafa aju sa noonu dafa aju ci baatan da ngay indi aaj joo xam ñaan rek ko koy faj su ñaanee nga dal tàggu jaaxle ga ngi indi woon ay njëriñ ma sañu wàcc fii njëriñ yi bari loolu ba ñëpp tiit bi ko ko waxee mën nañ fexe ba jàpp yoon indi ma jàpp yoon ne njëriñ indi ko mu ne ñaan ne ci tëf ne demal delloo ko boo ko bàyyee njëriñ yi ba mu naawee yëpp topp ko ñu di leen xool di xool ba lu ci bokk xool loolu njariñ lim jóge njëriñ fu jaar ba jaay bàyyi moom dara du fa des waaye nga gis njariñ lam njariñ foofu baykat yu ci at moomee ku am ay jafe-jafe yu mu xamul fu mu koy waxe ji mu yaakaar ko ci bu ñëwee mu ñaan koo ko tàggoo jafe-jafe ku wéeri di di ko xam ne docteur yëpp dañ dañ dañ mu ñëw ci moom mu sekk ko ni ak dégg ñaata seet la dencal ay nit def la ca war lépp mun a wëlbati ko ndawatal borom seet ba yéemu ci wëlbati ko bool leen yor ñaata doom la ngénte joxe la koy jagal wëlbati tudd ko mun a ndawtal borom borom ngénte la am yu bari yoo xam ne amoon nday ay ndaw yu ko ci man demal yooyu fa yooyu waaye te moo daa jóg demal boofu ngir xam yi ci nekk ñaata nit ñoo fi indi seeni néew mu déplacé dem ca bare bi jullee ko te amul benn sikk sakal kum ci kum jullee suñu borom jéggal la kon ñaat ñaat nit la xet li ca lor ñaat la yoroon seen dundu kër seen lépp di bàyyi ko ci moom yàlla rek ko ko xam kon Sëñ Abdul Xaadir la Seex Sida Ba waxoon Seex Abdul Xaadir Seexul Xadim walla bal na ci moom وما عيبه إلا عبادة ربه ونفعه ورا في صبحه ومسائه نسيم دبا جن أي لا خمال جن جن أيب لا نسيم دبا أيب أمدال ماي جام برامم أك دي جرين بني في أي صباح ما كنغنا ولا بلا جسي عبد الخاطر فوفم فيتي ون نيجي تام تام جا خيت جا أكسين تاخون نيجي بغو كو لول با امي ساغو سي موم ndax dañuy wax ne as gor ku ko teral teral ko loolu sax doon wax naan ahsin ila nnaasi tastabad qulubahumu fa taalama stacbada insana ihsanu neen saa boo ci nit ñi rek dimbalé leen rek da nga daal di moom seeni xol dañ lay bëgg ci farfos neen baraana xol buy jaamu eh, nit tala ko waral may rafetal gam rafetal jëm ci moom ñi ko tagg ñëpp nañ tabam gogu ak njariñ lim ëmbaloon binde fi ci zahir ak ci batin alhaji abdul aziz don wax ne kana rahiman bi ibadillahi wa taliban wa taliban lahum ridha ridha ilahi ci abdul xaadi ku bari yermandi la won ku yërëmoon jam yalla yërëm gam leen yërëm taxna mu daal leen sàkkul ngërëmal yàlla di leen sàkkul كان على الخلق حمولا صابرا على النوائب لهم وناصرا نانا كو يرم نبي ني غيرم دانا جان ني صاح بارتي دي لن غادول سيني لور تادي موني نك لو تي ماني ديك واي بولي دي لن ديمبالي نك بولي الله حاج مودو محمود نيان يال نكو سون بون دولي لا رك يرم ني اك نجيغال لطيف بل رؤوف بل رحيم fa ahra bil xufaati wa bil xuraati saxiyun bal jawaadun laysa yuxfi layaadan lil aramili kal ufaati ñoom seen doxaati ku bari yéen ku bari ak ñeewante la woon rawatina nag ci ñi amul fuñ jëm alxufaat mooy ko amut ay dàll kuy dox tànki neen alxuraat mooy ko amut lu sol mooy ku rek ña ñem ñem gënoon aay gën leen mën dimbale ma ñu tumuranke waaye ab tab la woon boo xam ne daawul denc dara ngir ña amul wéer waaye te dafa ñëw ak ña doon ña xaaral si maamun bu si imaam yàlla na fi yàlla bàyyi in kunta daa raxabin aw kunta daa raxabin fa suruhu fii daar aw xifta aw sara mooy bi nga ko ndokkeel ci bu ñu jógee makkatal mukarrama ña si daal fekkee da am looy xemeem te bëgg ca jot ma nga am loy ragal te bëgg ca mucc wala nga ragal sabaka dem seet Abdou Khadir rek la nga bëgg dal di faju da nga jot ca la ngay wut da nga mucc la ragal kon ko amaloon bindeef yépp njariñ la ci lu ndëb ak lu feeñ daana jariñ ci xam-xamam ci di ak woni yoon daana jariñ ci ay jëfëm ci di tarbiya ay nit di defa seeni xol di leen maral ak seen daana jariñ ci alalam di leen ci ci dimbali ñu aajowoo ndimbal te du ci sàkk xej ak seen daana jariñ ci baatinam ci di xettalee ko aajowoo xettal ak añam daana jariñ ci jëmmam ndax ku ko ne jàkkal sa dem ci borom subhanahu wa taala kon daa si Abdul Xaadir wa maa aybuhu illa ibadatu rabbihi wa nafanu ra fis bi masayi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne Maam Moor Mbàkke xam sa ci waxtanu am solo wi yakarna li mbok mbokk yi doon sentu ci mom ba tax ñu jox ko tomb bi waxna ci lu kawe njort yëpp muy tomb bu am solo niñ ko waxé won muy ndimbalul ndimbal julit ñi amel amel julit ñi amal leen ñu njariñ amal leen njariñ loolu wàccuwaay bi mu am ci lislaam ak ni ko ci Abdou Khadir jëmmalee loolu nag sëñ Maamoor waxtaane na ko ci ñeenti tomb tomb njëkk bi joxe na ay misaal ci képp ku ko bëgg a def ci yenn anam lañ ko mën a defee ci tënk rek wax na ci ne mënees na koo def ci alal mënees na koo def ci xam-xam mënees na koo def ci jubbanti nit ki mënees na koo def ci di ko laabire wala di ko digal lu baax ak di ko tere ab safaan loolu kon mooy ndimbal jullit ñi amal leen njariñ ñëpp mën nañ ko ki am alal mën na ko ki amul alal mën na ko góor mën na ko jigéen mën na ko mag mën na ko euh, góor mën na ko jigéen mën na ko mag mën na ko ndawit mën na ko euh, ñaareel bi mu wax ci charte yi nga xam ne képp ku jëf lii charte yi mënta ñàkk ngir suñ borom nangu ko tudd na ci ñaar yu am solo bu njëkk mooy bu ko jëf buy jëfal ab jullit

bu ëllëgee yowmal xiyaam ba ñëpp nekk ci ay jafe-jafe ak ay tartar suñu borom dana yebal malaaka mu woo seen tur képp ku ca bokkoon bu ëllëgee bu ñu wootee ñu ne leen yéen dem leen dugg aljana li ñuy bëgg a def xisaab ak yooyu yéen bokk leen ci muy waxiila in xarajam baari wa duru ba siraat fawqa naari wa kaabadal waral jawa wal xumma ba béy di jeex ñetteel bi sëñ Mamoor wax na ci ngëneel yi nga xam ne nag ameel jullit ñi njariñ am na ko maanaam jullit bi kon bu ko jëfee li ko ci li ko ci suñu borom di fayee mu wax ne li ñuy wax ne al jazaa'u min jinsil amal mooy nit jëf ju ne rek nam mel pay gu mel noonu la ca borom di jële mu ne kon bokk na ci liñ ci mën a jële mooy texe àdduna ak àllaaxira mucc ëllëg ci jafe-jafe yi ñuy ragal yomal xiyaam ak it nag képp kuy def loolu yoon bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu ëllëgee moo la garanteel sa karamu ba nga tàbbi aljana insha allahu taala mu mujj ci tox bi nga xam ne nag moo doonoon dëgg dëgg waxtaan wi te mooy Cheikh Abdoul Khadir radiyallahu anhu nan la ko jëmmalee ci ak dundam nag loolu moom wax na ci ay misaal yu leer yoo xam ne ñëpp dégg nañ ko wala ne rek ne Cheikh Abdou Khadir mën nañu jëfam yëpp rek moom mooy lislaam euh, maanaam mënees na koo tënk ne mooy alxuraan lépp loo xam ne alxuraan lu mu daan la loolu mooy jëfi Cheikh Abdou Khadir lépp lu mu daan tere mooy loo xam ne mosu koo jege mosu ko xam mos sa jaaroon yoon mu aw mu wax ne ñim dimbale ci ay mbindeef kenn xamul nuñ toll daana dimbale ci lu fés di dimbale ci lu nëbbu dimbulé ci alalam di jokk ak mbokk di dimbulé ay mbokkam di dimbulé ay jàmbur wax ci lu am solo ni loolu nak dako donno ci wajuram cheikh Cheikhul Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu nga xam ne bayit wii sëñ Mor tëjee waxtaan rek te Cheikh Sidé waxoon ko ko muy wa ma aybuhu illa ibadatu wa wara fi wa Khadim bu fekké am na sikk ko xamal ñaar yi jëriñ fi ak jaamu yàlla bu la xam ci ci sikkam kon bu ma sooy ci loolu bi mu ci noppee di wax na rek lenn ci ay kilifa yoo xam ne dund nañu Cheikh Abdou Khadir mu wax ñu seree jikko ji ci ay jëfam tudd na ci ñu bari kon damay jox Cheikh Abdou Lahad Mbacke mi nga xam ne moom maa ko euh, sëñ Cheikh astaghfirullah sëñ Cheikh moom soxna Maawa mi nga xam ne maa féete ci wetu ndeyjoor maa ngi ko doon fàttali léegi sax bi sëñ maam moo di wax ne euh, maye dëgg nag ci ci ci ci loo bëgg lañ koy def ma ne ko kon mbubb mi xam naa bu noppee rek dama koy baaxee xam na xam naa kon dama koy jox kàddu gi moom sëñ Cheikh mu jàngat la sëñ Mamadou wax bu noppee ñu doog a ñu doog a tënk incha allah bisimilah. عليكم ورحمة الله وبركاته. ني نيويورك باخ دي سياري بو باخ دي جيتال تي نيو بي اك سياري بي سيني سيدي آه، اك مبولم كليفه يفي نيك ياب اك سما نياري سانغ يي ما بوكال توك تي جاتا ياب دي سانت بو باخ سين مامور تي آه، ليرو بي ما شاء الله خم خم بي ليرنا آه، يا نك سين بروم باركال تا كو دول njariñ njëriñ li gën a mën a yaatu sëñ Mamour Hamdou tamit kay xam naa ci gàttal